哎。 halaan bikum ginnaaw bu ñu ko dàqee dàqaat ko atteb imaam Aliou Ndaw ba tey ci àllarba bi am nañ yaakaar ne atte ba danañ ko tàmbali les éco yéen kaay ñu ko xamal keneen ku ñu nar a atte tëj ko kaso yaayaa jàmme ma jiite woon Gàmbi Adama Baro ma ngi koy tëkku na dana ko tëj l'observateur moo ñu ko xamal tey mooy yéen kaay na ko ñi yaaya jàmme doon sant tamit ñuy rey nit ña ñoom itamit dana leen jàpp atte leen diggante Sénégal ak Gàmbi nag diggante bi gën naa ratax bi gi ñu mu toll nee na la nekkatul ay gént a yaaw seetal juróom benn accord xaatim nañ ko diggante Macky ak Baro ca seen conseil présidentiel ba doon amal Le Soleil yéen a kaay ko xamal laas yéen a kaay na ko ñaari njiit réew ya kay xàll nañ waneen doxalin wu bees ci diggante ñaari réew yi réewum Sénégal nag suñu koom-koom bi màgg na yokku na ba léegi ma ngi ci 7 virgule 2 pour cent Le Quotidien yéen a kaay ñu ko xamal ñi seen xam-xam màcc ci wàllu koom-koom ci source a yéen a kaay ne ee eh, daf leen dànk de loolu du dëgg yow koom-koom bu yokku te askan waa ngi bëgg a dee yaa ngi fees dell ci réew mi ñi fontoo nit ñi ay 7 virgule 2 pour cent loolu di waxu caam caam ñi koy bind dañoo bëgg lu neex nguur gi rek Mamadou Lamine Diallo wax na lu garaaw lu Macky def nee na ci Walfadjri yéen a kaay aa yow seet total junne ak ñaar téeméer milliards moom la Macky lebati fas yéene koo fayee suñ pétrole bi ak gaz bi nga xam ne génn gut sax Macky tay la na ko dil yu garaaw la ci amal Dakar Times si feelu ko naka xaw ma lan waaye trésor public bi xaalis amut fa réewum Sénégal nguur gi amatul xaalis li am Sénégal nag mooy élèves yi ci Sénégal yëpp ñu ngi wàcc ci mbedd yi di amal doxum ñaxtu di ñaawlu geraw yi kat yi nekkee di sàkk mu dakk ndax fa ñoo bëgg a ñoo yor réew mi geraw yi dafa ëpp fi mu toll nii ren boo moytu njàng mi fay yàqu de Ousmane Sonko yi ñoo nekk ci dëgg ndax Macky moo xaatim ak ñoom ay accord na leen danaan leen ko defal ñu muñal ko ba léegi defut ko kon lu ji njaag nguur gi mooy njaag léegi nag yaa ngi yoral bor jàngalekat yi mënoo leen a fay médecin yaa ngi geraw nga yoro bor yu bëri xaalis boo war fay ci réew mi nga ëlbatiku yow Macky Sall naan yow yaay da tabax pale bu bees ca jam ñaajo xam nga ne na xam gaynde guy nelaw la léegi ma nga ca coma maanaam diggante dund ak dee mi ngi ci témoin yéen a kaay la na ko moo taxit ko fi ci bopp réew mi ndax Sonko Balde Pape Diop Karim Wade Gakou Aïssata Tall Sall ñoom ñëpp nee nañu samp nañ seen ndënd 2019 ñu jëlee fi a kaay na xaw ma kan waaye Idrissa Seck moom ngir ndax mu na a la ndax coalition Benno Bokk Yaakaar su fekkee ñoom rek la Macky yaakaar yaakaaram ba fa màgget naka doon a coalition taxaw Sénégal ba ca coalition Abdoulaye Wade ba laas yéen a na 2019 gi wàññi nañu caution bi ñu war a joxe ngir nekk candidat la mu wàññiwut moom Macky Sall mooy transhumance dem ci ku jéggi nangu fa ay responsable ñu ñëw jàppale ko te pourtant moom Macky moo doon contre transhumance si du quotidien moo ñu ko xamal nee na Macky ngoroon na Bamba Fall ngoroon na Diagne Fada Ablaye Balde lu ko jiitu nangu na Sada Ndiaye ak Serigne Mbacké Ndiaye professeur Amadou Ka nee loolu muy def baaxut ci moom na xool ci Ablaye Wade bi mu ko fi defee atam terewut askan wi ko fee jëlee te Macky erreur bi mu def mooy ñooñu muy nangu ñuy transhumé ñëw ci partem bi ndax ñetti ay bés a nii seen garab googu ñuy wax carboplatine fa manqué ci réew mi direct info moo ñu ko li mu ñu xamal moom Sayer Niang njiital ARMP mooy ñeen fukki dëggam ak juróom-ñaar moom la wax ci l'observateur ay yaw nee na benn kilifa musut ñoo sant def leen lii wala bàyyi leen lii ñun rapport yi ñuy génnee ci yoon lañ ko teg seen bilan lañ tële ak la ñuy wax na ko fa ki réccu ay kàddoom kay mooy professeur Songe Diouf ca TFM ci ab émission mars daf caa wax kàddu garaaw jëmale ko ci jigéen ñi askan wi yëpp ñaawlu ko léegi nag waa Sénéra artu nañu TFM na buñ tegaat émission ba te kàddu ñaaw yooyu suñ ko jàllalaatee danañu teg ay daan waa TFM lañu ba tey 2016 bu ARMP bi feeñal na wàllu banditisme ca inspection d'académie bu Ndakaaru tàggat yaram Arsenal Chelsea tey ci ngoon ale ba benn ak benn la woon record yéen a ne ndax Chelsea mën naa def exploit fekki Barça mbuqi ko kañu mbuqi ba muy bëgg dee nag mooy Mourinho Man United Séville moo fa jaar defal ko bagaas biir këram 2-1 la ko mbuqi man fari new keneen ko fari new ginnaaw buñ ko mbuqee ci làmb ji mu dem tëju nangoo tuta wax ak kenn du kenn ku may Sa Thiès magam Balla Gaye 2 fa mere Sa Thiès du ko tudd wax ak moom ndax mi I'm in the du balees bàyyi Sa Thiès ma ngay jooy-jooyu xol am lu ko naqari nee na samay doom dañ maa war a déggal Balla Gaye nag nee na mën naa mbuqi Gris Bordeaux Sa li ko dal nee na moo ko teg boppam les éco yéen kaay ne ko moo taxit Balla Gaye léegi duy wax ak moom la mu ñu wax moom l'observateur mooy benn waay daal moo yore doomam tii ci loxo bi ànd ak moom di dem romb ay nit ñu ne kii dafa sàcc xale bi mu yore rek dal ca kawam waaj daw rëcc xaw tuuti ñu dóor ko ba mu dee yëf yaa nga amee ca banlieue bu ndakaaru li ci garaaw mooy waa ji xale ba mu moo ko jur ay waa ma ne xam ko rey ci ci erreur sàcc xale am na Sénégal ba tax fi mu toll nii ku ngeen gis mu yore xale rek ngeen foog na fa ko sàcc def leen ndànk te teey lu ko may di ngeen nit ci erreur